rafetlu seen àndina ak la meilleure chaîne du net la chaîne des leaders Senbuzz TV mbokk leader yi ñuy bàyyi xel ak fépp fu ngeen mën ne ñu ngi am mbégte kontaan saa su ci di janoog te di leen jaajëfal bu baax a baax ci seen choix renouvelé du ñu jug ci di am mbégte ak saa su ak képp koo xam ne rek am ngeen choix ci li nga xamee ni euh, mu ngi koy yëngu ci lépp loo xam ne tamit lu leen soxla ci seen dundin ñu si am ay jotaay yu leen wéttali ci loola di li sabab euh, suñu benn yaay bu ñu dootul présenté quand si culture ñu xamoon ko mu indi woon euh, touche bu Thiès ñu fas yéene am moom jotaay boo xam ni certainement du ñàkk dina wax ak euh, ñu génération bi génération bu bees bi ak lépp rek loo xam ni aju na ci culture rédaction Senbuzz fas yéene ko waxtaane ak moom euh, di li sabab ñu seet si ko euh, maman Thiaba Thiès ñu ngi lay nuyu rédaction bës gannaaw bi ñu rafetloo vraiment fas yéene am ak yow jotaay di la gërëm ci dalal beeg disponibilité bi jërëjëf maa ngi leen di fay bu baax a baax di rafetlu tamit tamit Senbuzz hmm. war a am jotaay ak man maa ngi ci kontaan trop di rafetlu hmm. seen ñëw fii tamit du nuyu sénégalais yëpp tamit bàyyiwuma kenn fii ba merci beaucoup alors sama jigéen code multi service borom Rufisque moom moom a génn ak man ci chemise bi code maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax ay numéro téléphone am ñu ngi leen koy afficher jamono ji merci beaucoup grand leader alors Mama Thiaba euh, ñu bari dinañ soxla xam turu Thiaba Thiès la wala lan moo waral euh, Thiaba Thiès waaw Thiaba Thiès sama première cassette bi ma njëkk liggéey ji ànd ko ak ku baax ku ñu wax alhamdu si yàlla moom na ko moom a tudde woon benn cousine am Hmm. waaw mais man tudduma Cabe Thiès. d' accord donc tur tur la boo xam ni aar moo la ko jox rek ah. aar moo ma ko jox d' accord. Hmm. alors ñu def ba nga xamee ni c' est vrai que ñëpp ah ñuy wax ñëpp daanaka ñëpp turu turu Cabe Thiès la ñuy faral di wax. quand même Cabe rek la ñu xam de. absolument wallaay laa si. très bien damay am fu may dem sax di lujjanti kayit bu ma juumee def ci Caba Fall. Ah? ma ne ah tudduma Caba di. <laughs> alors Fama Fall laa tudd. très bien hmm. alors ci lu tënku rek dinaa bëgg a xam même génération bii def théâtre jamono ji wala ñi nga xam ne ñoo nekk ci milieu audiovisuel bi d'une manière générale euh, xam fan nga amee parcours moment moment bi ngay xamee ni cinéma melul comme léegi euh, producteurs yi bari lan moo la boole woon ak li nga xamee ni mooy théâtre ba nga xamee ni ñu ngi la doon découvrir ak ñoom Papa Demba Fall ak ñooñu. waaw li ma boole ak théâtre mooy man def ma jaaxal sax parce que man théâtre jànguma ko mosuma dem salle bu ñuy répété kenn du taxaw ci Sénégal ne moom a jàngal aar kenn mësuma gis ci salle bu ñuy répété man passion laa doon def nekk gaaru ceer pompier jóge fa dem port Moulwit 2000 ah wallaahi laasim 2012 bi sunu borom yàlla dogalee bàyyi Ablaye Wade folu ci coobaree borom bi hmm. mu daane ba place ya fa nekkoon yépp bi ma ko daanelee nag ma ñëw ci kër gi toog par hasard ah, euh, ñu woo ma benn bis mois de septembre la comme weer wii ñu nekk tey euh, man dem wuy ji fii kër Tafangom hmm. ma dem wuy ji ñu ne ma kaay wuyu ma ñëw ñu ne ma dañuy def benn pièce théâtre ki man leen i man damaa mën loolu mënuma ko ñu ne ma yee kaay wuyu. loolu ban année la nga ni. 2003. Euh, 2003 d'accord 2003. Hmm. septembre nii na dama xamatul ban yan jour la septembre mais septembre bii la. ok bis bi may jógee sama kër di dem mi ngi yebbi yebal sax ma dem fekk fa alhamdulilah muy euh, waa ji nga xam ne moo doon produire cassette bi. Hmm. ma ñëw rek commencé ko mbala xam nga samay affaire <laughs> mu daal ne kii laa soxla woon. waaw ci la ñu hmm. waxtaan ak man. ne ma ña lu ma lay fay ma ne ko damaa xam de bul fay bàyyil ba ma pare bul fay. man hmm. ab ceeb laa xam a jaay su yàqoo nag. te kon da nga doon am demande lu jiitu loolu nga baal ma lan nga daan jaay ci gaaru ceeb bi nga nekkoon ceeb. ah di jaay ay restaurant comme ni ko d' accord. waaw añ ak hmm. ma ne ko mënuma da ngay xaar ba ma pare su baaxee nga doog a fay. waaw mu daal di ma jox 10 000 francs ma defal samay coiffure. lii ci ëllëg sa la lendemain ba lañ mën a kàcce. dañuy dem tourner ji. ñëw tourner ko tourner nañu ba 2 jours sax. ba ma dem ba découragé ñëw toog sama kër. Hmm. Ah, kamu ñëw ne ma yow da nga tourné sama ne ko eh, may deux deux jours may toog fii ci kii tourné wul xaw ma luy loolu. Hmm. kenn tourné wul ak man mu ne ma kaay tey yow yaay tourné. ba ñu añee ba pare. Hmm. ñu ne ma ca ba pare yaay tourné ay waay li jógee ci man keroog <laughs> day na ni gëléem de. musoo def cinéma tey ñu xaw ma sax nuñ koy def musuma fi seetaan sax. tournage. ah ma dugg dem. changé xam nga. yàlla ànd ci rek. ci coobareem alors beneen mbir boo xam ne xam naa lu jëm ci société bi d'une manière générale ak suñu mbokku jigéen ñi leneen loo xam ni maman nga nga bokk ci ñi nga xamante ne ay éducatrice ngeen ndax seen i œuvre dañ ci daan jàngee lu bari bari. Mm-hmm. mu nekk phénomène boo xam ne lu bees la ci ndaw ñi rawatina jigéen ñi parce que ñoom la ñuy gën di faral di découvrir donte ne ak ay góor ñoom ñoom ak ay góor ñoo koy def muy lu ñuy wax sex tape maanaam xale bu jigéen bu ñu kaako ko maanaam mu mujj ci réseaux sociaux yi internet bi askan wi di ko partager nga nekk éducatrice yëg-yëg boobu ban yëg-yëg ngay am ci euh, fi nga xamee ni toll nañ fa léegi ci ak tamit ñàkk valoriser li nga xam ne mooy jigéen ak image yu demee noonu. xanaa naqar ndax man damaa jaboote ay jigéen te ñooñu koy def ñëpp tamit sama njaboot rek lañu ndax man mënatuñ maa jur maay jure rek waaye kenn dootuma jur. am naa ci naqar trop nag te su ma sañoon itam mu nekk loo xam ne lu fiy jóge la même buñ leen dee teg sanction nañ leen ko teg ñu bàyyi ko jigéen magasin bi yàlla denc ay ngëneelam war naa jomba filmer wu ñu koy partagé dañoo xamul lan mooy valeur jigéen dañ dee xale waaye boo dee magum yàllam jëm hmm. toog ba sa njaboot wër la di la mënal di la sañal di la demal di la dikkal war ngaa jomba def loo xam ne bu ëllëgee balaa ñu laa defal seen xel dem ca loola ñu def malgré rek. Hmm. waaye seen xel day dem ca loola. alors lan nga jàpp ni moo ko waral parce que ñu bari dañ gis ni. jigéen bu demee am choix wu di ko envoyé nit muy mujj si penc mi tamit du ñàkk am na loo xam ni euh, moo ko waral lan nga jàpp ni. moo waral sextape yooyu. bari léegi est ce que lu mu tudd nga ne. sextape ah xalaas lu ma ko mën a wax lu ma a wax sax xanaa xaalis. xalaat naa ne moom la parce que li tax ma xalaat ne moom la daray àddina lu feesut sa poos bii warulaa mën a jaral nga yàq sa bopp lu feesul sa poos bi fajul sa soxla jarulaa jaral nga yàq sa bopp dara addina jaru ko maa ngi koy dégg nag waaye bu sama bët bi mos cee dal mm. déedéet mosuma ko gis mm. parce que duma ko seet. Hmm, dëgg la tolloo ma ak loolu sax. alors c'est vrai que mën nga ko bañ a seet doo ko seet aussi ndax euh, suñuy yaay ngeen muy maman Thiaba euh, bu fekkoon ni tamit gis nga ni fi nga xamee ni toll nañu fii société bi toll fii rawatina doxalinu xale yu jigéen ñi d'une manière générale ak li nga xam ne ñu koy faral di découvrir ñu nekk quand même ay victimes ci côté yu bari viol ak mbiru sexualité bi mu lay wax ak yeneen ak yeneen lan nga jàpp ni moo manqué jigéen ñi ba nga xamee ni euh, c'est un difficile quand pour ñoom jamono ji nga nga layal leen ci biir penc mi lan nga jàpp ni moo waral loolu hmm, violé tey suba accusé nañ ko leneen suba nangam ak nangam affaire yooyu. moo wane li tax ñu violé ko. Hmm. bu ab dënnu feeseer dell ak ay ween. nga fexe ba góor teg ca bëtam góor góor rek la góor <laughs> góor góor rek la bu gisee nu ko ñoon noppi yaay taxaw bokkut ak yow ndey bokkul ak yow baay te foo ko woo fu la woo nga wuyu ko fa viol du mën a ñàkk. nga wëlbati nag jël sa jëmm ji filmer ko yónnee ko ko waaye nañu waxante dëgg na góor ñi dañu lekk xorom dinaa meew. Hmm. ah kon viol mënut a ñàkk lii di am léegi ñun doo ñu ko dégg bu jëkk daal. ay viole ay ay viol yi wallaahi la asim mm-hmm. man léegi laa ko xam sax. c'est vrai que maman léegi c'est fréquent ay xel yu am 16 ans ngay gis ñu am doom boo waxee ñu ne dañ ma violé woon et puis même dans les tribunaux boo demee euh, gën a bari ni non sama gel la woon dañ doon génn consentement moo amoon suñu diggante. Mm-hmm. mais mu nekk lu fréquent quand même dem ni sax euh, ñi nga xamee ni ñooy féministes yi kuréel yi booti jigéen ñi dañ gis ni dafa jaadu jamono ji ngir li nga xamee ni viol yeeg njur yi jaarul yoon bari mm-hmm. ñu def li nga xame ni mooy avortement médicalisé maanaam fexe jigéen bi di yàq gàtt ëmbam ci loo xam ne dafay ànd ak. dikk nga fu ma ñor nag. Hmm. fu ma nangoon bu ma yàkkamti woon ñu laaj ma ko. gis nga avortement boobu maa ci gën a ñàkk d'accord maa ko wax fii man ci télé bii seen bës bii. Hmm. laa ko waxee te duma ko weddi. xam nga li tax kañu viole moom nga ne baayam moo ko def wala frère am wala nijaayam nañ ko nañ ko dindi ndax doom ji warul dund pour lan warul dund. ëllëgee ka nga xamante ne doomi caba Cees la di ndey ja mi ci kër gi dem yàq boppam ca àll ba ñu violé ko mu kan lan ngay na a mee ni kii ci àll ba lañ ko violé wala ni yaa moo ko mm. Mm. ah xanaa ñu ngi indi yàq biir ñu ngi fi gën a dool yàq biir d'accordu ma ci tey d'accordu ma ci ëllëg wallaay d'accordu ma ci ndax mënoo séparé ki nga xam ne moom nijaayam ak ëmbal wala kii dem saam boppam ci àll ba mënoo koo séparé mm. kon kay ñëpp ngay boole avorté ak ki jëkkëram tukki mu ëmb ci gànnaawam ñëpp ngay boole avorté man d'accord ma mm. da ngay gis ni dafay nekk loo xam ne boobaa dafay yombal li nga xamee ni mooy <laughs> jigéen ñi ñu mën a am liberté ci seen bopp ah boo taxawaaloo la ko kay day am la sim laaj nga ma lu ma bëggoon loolu war ñu ko wan a teg sax mm. pourtant li nu nekk ci ñaaw jigéen ñoo gis ay jigéen ñoo mobilisé wu ay féministe ay jigéen ñoo xam ne dañu ni dañ leen di xeexal àq ak yelleef moo tax ñuy proposé yooyu loolay àq ak yelleef ñoom loolu lañ gis de dañoo njëkk ci yaram yarami neen yi faj ko ba pare ak sàgganu gi ak col bon mi doog a lijjanti loolu man d'accorduma alors kon daal ci gàttal euh, maman Thiaba Thiès jàpp ni lii nga xam mooy avortement médicalisé du loo xam ne lu ñu a nangu ci dëkk bi la waaye lu ñu a xalaat la tamit par rapport ak éducation wala li nga xam baaxoo nañ ko ci dëkk bi waaw man de wax dëgg yàlla d' ma hmm. sama baat ca kaw hmm. fu ma woowoon dama leen naan d' accord ma li ciy laxasu moo bari ñoom dañ koy def ngir ndimbal doomu aadama yi hmm. ndax ku sa bàyyi teg day metti torop doom jooju judd fu muy daagoo sa nijaay noonu sa mag am na fi nag bàyyi du ko teg nijaay du ko teg. Hmm. day taxawaal ba mbandaari teg ko ko bu ñëwee wax na la li am lu noo koy noo koy xamee. très bien ah wuu <coughs> alors maman tamit benn point boo xam ne dinaa la ko laaj euh, dafa am benn mbokk bu ñuy wax Aliou Kane borom Rabat merci beaucoup Aliou Guèye euh, depuis Maroc merci beaucoup nee na ndax euh, gëm nga ni éducatrice bi nga nekk maanaam yarekat bi nga nekk gëm nga ni li ñuy faral di wax virginité ak li nga xam ne mooy xale yu jigéen ñi ni ñu mel léegi ci ñàkk kersa gëm ni mu ngi am ba léegi ci ñenn ñi. waaw mi ngi am. ñenn ñi nag dañ gis ni originalité bi amatul. am na am na. Hmm. waa ba tey mi nga am xam nga loo ci gisee ci yar bi la. man duma olof man làkkat laa kon su ma la nee mi nga am rek mi ngi am man de yàlla ak yonent bi seede na ne. Hmm. amaguma doom ju ma jaaxal te ay jigéen rek laa bari la benn góor fi nekk benn doom mi ngi am mi ngi am sax. mi ngi am ndax ñun ay bàjjan lañu. Hmm. dañuy lal dañuy lalli. te léeg-léeg ñu lalli logub këriñ nag waaye léeg-léeg ñu lalli naan ndox mu sedd nga xam ne kooku la Mm. day fees dell mm. la kon ndeyam yu ëmbe woon ba mi ngi ci moom loxo yaayam a mujj ci jëmmam ja loxo yaayam mujj ci jëmmam ja loolu day am mi ngi am de alors Mama Thiaba du ñàkk tamit li nga xamee ni mooy actualité Mama Thiaba Thiès moom la rédaction Senbuzz di am ak jotaay mu bokk ci li nga xamee ni mooy suñu benn mbokk jigéen boo xam ni ndaw la sax nekkee feebar bu métti quand boo xam ne mën nañu wax ni certainement ñi koy dund ci réew mi bariwul muy Fambaye Mbow borom Dagana bi nga xam ne Wally def na effort yu nekk sax ngir dimbali ko terewul depuis un moment boo xam ni mu ngi ci ay tolof tolof ngir feebar bi nga xamee ni euh, moo ko jaaxal ba mu yuuxu wallu yuuxuwaat wàllu quand même lan nga gis ni moo tere Sénégal jug jàppale ki nga xamee ni mooy Fambaye Mbaye gannaaw bi nga xamee ni ay at ngi nii mu ngi yëkk yëkkati yuuxu quand même pour ñu dimbale ko ci li nga xam ne mooy situation bi muy dund. di xale bu feebar bi bënn sama xol barke Cheikh Mouhamad Lamine Baara su ma ko amoon dinaa ko faj ndax la avenir am nekk si kanamam faa mbay xale la xaw ma ko xaw ma ban kañ la juddu mais xam naa ne xale la man leer na ma ne mamul ku maaseel sama kër barke Cheikhul Khadim su ma ko dinaa ko faj. Hmm. comme amuma ko nag ni faa mbay tàllalee gémmiñam man dinaa ko tàllale sama bos en tant que yaay xam nga kan laay woo gouvernement bi président de la république Macky Sall sunu baay suñu président suñu lépp suñu njiitu réew moom laay woo sama xol bi sax mi ngi fees waaye dama koy man moom lay woo. bësal sa xol maman Thiaba xam naa yëg-yëgu waajur rek moom moo fees sa xol ndax tamit euh, waajur bu nekk rek daanaka boo gisee lu daal ci njaboot gi seen normal sa xol xaw a tooy waaye mu mel ni yaa ngi yëkkati yaa ngi yëkkati quand même kàddu yu am solo gouvernement bi ngay woo c'est vrai. man moom président laay woo directement woowuma kenn woowuma premier ministre amatu fi sax woowuma kenn demu demuma assemblée woowuma kenn man président de la république laa ko ne cëri Famba yii ñuy génn ci biti na ko dakkal hmm. moom rek moo ko mën a dakkal. Wally Seck def na lu ne Mariasine yàlla nga gudd fan. dégg naa ku dal ci yow dimbali nga ko. gisa sax mësuna koo def man ak moom def na lu ne mais am na foo xam ne Wally àggu fa man mii àgguma fa. waaye nag gouvernement bu yëkkati woon loxoom tey. Mm. tey jii la lan mercredi. Mm-hmm. balaa vendredi xale bi jigéen bi ñu génne ko ci réew mi ñoom faji ko waaye waaye njiitu réew mosuma laa woo ci dara barke yonent bi. Mm-hmm. feebar naa fi ba jóg mosuma laa woo woo kenn. waaye woo naa la ci Fambaye Mbow bu Dagana nga def ci sa loxo te yàlla rek tax mm. yaa ñu gouverner mm. yaay suñu président amuñu fenn yaakaar ku dul yow te cëri Fambaye yi di génn daal su ma sañoon mu dakk wax dëgg yàlla macha allah mu mel ni xolu waajur moo la moo la moo la jàpp jamono ji mais maman tamit ndax Sénégal wax dëgg yàlla bari na ñoo xam ne yàlla may na leen teraanga tamit xale bi yëkkati na kàddoom yëkkati waat kàddoom terewul ba léegi mu ngi ci mu ngi ci euh, benn situation bi mu nekkoon ñenn ñi gis nii

dimbali waay nañu dimbali ngir jëmmi yàlla ak yonentam bu tedd bi mu def loxoom ci Fambaye Mbow man Caba Cees mu Alaaji Baara artiste comédien maa la koy ñaan alors man ma jàpp ni euh, ki waroon a jiitu ci lii mooy soxna soxna Marième Faye Sall tamit je pense que aussi euh, jaadu na tamit moom nga wax ak moom parce que tamit jigéen la budul dara aussi am euh, benn kuréel wala benn fondation boo xam ni aussi daanaka yu demee noonu rek moom la tënk ni ci lay dox. je pense que kon jaadu woon na mu njëkk réagir quand même donte ni Fambaye moom dëggalul ni kii di première dame réagir na wala gouvernement bi. ku baax la Marième fay hmm. dama koy dégg ci leneen waxtaan wu ne wax dëgg ci la defaluma dara mosuma ko sax gis tëdd naa 7 mois. woowu ma ko woowu ma moroomam yàlla yonent bi sëñ Tuubaa ma fi yëkkati waaye nag ku baax la fondation la xaw ma servir le Sénégal defe naa moom la yore su ma juumul bu dee mu may dégg tam ak ku may dégg te mën ko koo jox ne ko moom yaay la comme ni ma doonee yaay Fambaye xaw ma ko mais dama koy xool ne su ma gisee Fambaye dama naan ma mami Diop moo toog nii sama doom waaye waaye fay boo mag jëkkee dégg jàpp ci wala nga jottalil ma ko président madame Faye maa ngi wallahi Fambaye day tik youtube la xaw ma su ma ko ci gisee wallahi dama koy zappe ndax dama koy bëgg xool te mun ma koo xool ndax ma ci dara wax dëgg yàlla maa ngi koy ñaan daal. incha mu mel ni message bi jàll na bu fekkee ni tamit euh, jamono ji am na ñenn ci askan wi yoo xam ne aussi du ñàkk euh, ñu ngi def seen kéemtalaay kàttan ngir dimbali ko ban message ngay jeexalee maman yëkkati ko jëmale ko ci askan wi rawatina sa doom yi xale yu jigéen ñi nga xame ne jamono ji daanaka war nañu am taxawaay bu am solo ci société bi te ñu leen di duut baaraamu tuuma ci mbir yu bëree bëri. xanaa di santaat yàlla di sant yàlla bu baax. di gërëm sama ñaari waajur di sant Cheikh Ahmad Lamine sama yaakaar di leen wax ne yaay waddu leen waddu leen bu baax a baax bu daray àddina tax ngeen di sàggane seen bopp góor lu ko ump lay dabu lu ko ump mosu koo gis moo koy tax a daw mu liggéey alalam def ko ca waaye lu lamb ci kanamam doo ko jaral ñaari dërëm kon wadduwaat leen ba mu dëgër man maay seen yaay man ay jigéen rek laa jaboote protéger leen seen bopp bu leen yàq seen bopp àddinaa ngi ci kanam te way wu rafet yàgg way ñaaw yàgg li ma leen di sant daal mooy loolu di wax euh, daal toujours maa ngi baamtuwaat euh, nañ jàppale Fambaye Mbow ak a ak a fees sama xol mënoon nga def interview ba dem du ma jooy waaw jàppale leen ko président laa ci waxu ñi ci des ñëpp ngi def mais dafa diis. day am fu mbir di toll foo xamante ne gouvernement rek moo ci mën dara. waaw loolu rek mooy problème te lii sax loolu la gën a wane wax dëgg yàlla fi mu toll nii dafa mel lii ëpp solo a def quand même état bi la gën a yomb. yàgg na nag quoi na waali def na keneen ak keneen def na. xaw ban ban hmm. la doon wax. dëgg la dégg naa ko. def na keneen def na mais dafa diis. Hmm. kon euh, président tegal sa loxo rek. dimbali nu rek ngir yàlla. macha allah wallaahi dimbali nu barke mm-hmm. sëñ Bamba maa la ko ñaan. jërëjëf ci xol bu fees laa la ko ñaane. jaay laa tamit jaboot laa. dëgg la maman Thiaba la woon ci say doom rédaction Senbuzz tey ñu ñëw seet si la donte ni xat nga terewul may nga ñu possibilité mbégte bu amal app la woon vraiment ci am ak yow jotaay. jërëjëf euh, may kontaan ci Senbuzz di kontaan ci yéen tamit di leen ñaanal yokk ba yëg ko ci barke Cheikhul Khadim alors rédaction Senbuzz aussi di yëkkati kàddu di ñaax mboolem askan wi mboolem leader yi di leen fàttali rek li yàlla wax ci alquran wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yuxlifuhu wa huwa xayru raziqin képp koo xam ne rek investir nga ci def lu baax yàlla mu ne récompense la boo xam ne amoon naa la ko te li gën a am importance ci li nga xam ne mooy dundu doomu aadama mooy am récompence ci li nga xam ne mooy wërsëg te garantie bu yàlla jox nit koo xam ne mi ngi dundee la alam la euh, képp koo xam ne tamit feebar nga ñu ngi lay ñaanal yàlla nga wér waaye kii di Fambaye euh, soxla na Sénégal taxawu ko soxla na vraiment état bu Sénégal taxawu ko soxla na vraiment képp koo xam ne rek ndaw nga képp koo xam ne jigéen nga euh, nga taxawu ko rédaction seen bés di lancer appel ñu gën a dellu rek ci li yàlla waxoon ci dimbalante li nga xam ne moom moo ñu war yàlla moo ni wa taawanu alal birri wa taqwa bu ngeen di dimbalante dimbalante leen ci li ngeen xam ne mooy lu baax lu baax mooy euh, nit ku feebar nga dimbale ko lu baax mooy nit ku juum nga orienté ko lu baax mooy nit koo war a appuyer ci dara nga def ko euh, loolu la yàlla soxla ci nun te en vrai dire quand même loolu rek mooy sensu dundu humaine kon rédaction bu bu seen buzz message bu ñuy jàllale ngir képp kenn ku nekk ci ñun jël sa responsabilité képp koo xam ne rek mën nga koo dërëm la ñaar la euh, ñuy jàppale ki nga xam ni mooy Fambaye Mbaw comme ni ko leader bu mag bi defee moom Waly Balago ak bépp leader boo xam ne rek jamono ji yaa ngi def sa ci li nga xamee ni mooy euh, feebaru ki nga xamee ni mooy euh, Fambaye rédaction seen buzz message bi la doon jàllale Maman Thiaba wax na ko ci ay kàddoom rédaction a